قال الأقمى أقل لأرباب الغرام كل من يعشاق محمد في أمان سارت الرطبان ليلا قصدهم أرض الحجاز والمطايا تترامى باضطراب واكتزاف قالت أقمى دياجيق لأرباب الغرام كل من يعشق محمد في أمان وسلام محمد ذو الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم محمد سيد الكونين والثقلين الفريقين من عرب ومن عجم يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيبنا آه يا حبيبنا آه يا حبيبنا آه يا حبيبنا أي أنت الأمين يا حبيبنا آه أنت البشير يا حبيبنا أنت النذير يا حبيبا أنت البشير يا حبيبا أي طه الأمين يا حبيبا أي طه الأمين يا حبيبا طه الأمين يا حبيب طه الأمين طه الأمين يا يا حبيبنا يا حبيبنا آه يا حبيبنا لولا الهوى لم تريق دمعا على طلل ولا القرآن والعلم فكيف تنكر حبان بعدما شيطان به عليك عدول الدم وسقمي حبيبنا يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيبنا حبيبنا يا حبيبنا أي أنت الأمين يا حبيبنا أنت المنصور يا حبيبنا أنت النذير يا حبيبنا أي مصطفى البشير يا حبيبنا قال الأقمار قل لأرباب الغرام كل من يعشاق محمد في أمان سارت الرطبان ليلا قصدهم أرض الحجاز والمطايا تترامى اخفض طراب واكزاف قالت أقمى دياجي قل لأرباب الغرام كل من يعشق محمد في أمان nanggunya ya Rasulullah Muhammad محمد ابن عبد الله محمد صبي النبي محمد رسول الله إمام المرسلين حبيب الله yow yaay gan gi min def رسول الله حبيب الله خلقه القرآن أحمد خلقه القرآن أحمد أيوا حمد كمتان مونو إند البيان جبل دكوي إنسان رسول الله إمام المرسلين حبيب الله يو يا mi ngoog mi ngoog mi ngoog mi ngoog mi ngoog ñi dab acca nañ def dugg si na Seyda ah borom bés dugg si nag jërëjëf jërëjëf Seyda jërëjëf oustaz Mouhamed Lamine Dramé jërëjëf jërëjëf oustaz Ahmed Dam jërëjëf bismillahi rahmani rahim والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله fas tàmbali liggéey bi nga xam ne moo tax ñu daje fi waaye nag ñu ànd ak ànd ak jéem koo dalal rek incha allah lépp dina baax ginnaaw bi ñu nuyoo kilifa yi toog ci taabal ji yëpp danañ ñëw léegi ci lim leen seen ay tur benn par benn insha allah dañuy fas yéenee tàmbali programme bi ngir yëkk ngir njëkkante ak waxtu wi dañuy daldi jox rek suñu sëriñ sëriñ Ahmada si bu sëñ Moustapha si Jamil mu ñëw daal di ñuy ubbil jotaay bi ak ñaan ñu door a dugg ci programme bi tàmbulee séddale kàddu yi incha allahu taala buñ demee ba ca cat la danañ jox kàddu gi oustaz Mouhamad lamin Daraame mu war a ñëw ñun ci thème boo xam ne mi ngi ko tudde min xasaisil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam loolu ci kanam tuuti lay doon dañuy njëkkante ak waxtu wi ñu ànd akuk dal ñun ñëpp yeesalaat yéene yi jox kàddu gi sëriñ bi mu ubbil ñu jotaay bi ak ñaan bismillah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 summa salaatu wa salaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam xaatimi nabiyina wa imaami almursalina miratu zaatillahi wa mashhadi sifaatillahi wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ixsaani ila yowmi diin mbokki assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen massawu coono yi di leen ndokkeel ci bés bi di leen jotal nuyoo ak ziyaara kilifa yi ñu bàyyikoo di xalifatu am di taifati tijaaniya di sëñ Babacar Sy Mansour ak kilifa gi nga xam ne moo xajilib xadara Seex Seydi Mouhamadul Moustapha Sy Jamil radiyallahu taala anhu di Cheikh Seydou Mouhamadul Mansour Sy Jamil ah, di am mbég ak kontaante lool di teew ci jataay bi di ko bokk kilifa yu tedd yi ñu jox ñu ñu jagleel ko ku tedd koo xam ne kii macha allah la sunuy jur boo waxoon di sëñ Mansour si borom daara yi radiyallahu taala anhu daan wax ni bu du wante Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn du ni xew bay xew kon nag fa tabarakallahu bu ñu yëkkatee bés bu toll noonu jagleel ko ko woo kilifa yu tedd yi nga xam ni macha allah li sëñ Mansour si Djamil di wax ne euh, bu ñu xoolee ñii fi teew dañu naan c'est la fête de l'intelligence c'est la fête du savoir kon fa tabaarakallaa ndax ay borom xam-xam rek fi daje yoo xam ni kenn ku ci nekk mën ngaa yor réew kon fa tabaarakallaa ñu leen nuyu leen ziyaara di ndokkeel nag oustaz Mouhamed amin darame ci li nga xam ni moom la woote mbokk yu tedd yi wuy si ko ci bés bu rafet bii. ñu jaglee ko sangu sangu yi di sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla dogal sax xatoon nañu lool waaye nag ñu ni bés bi moom mënuñu ko wuute ndax macha allah li mu ëmb ci yiw ak ci ngëneel ndax macha allah yonent bi sallallahu alayhi la mu am ci ngëneel kenn xamul lu mu toll na ko muhammadu busri loo waxee fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa yuriba anhu naatiqun bi mi nee na ngëneelu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam del di ko néel xaddun dayoo fa yuró ba ca xamee anhu ci moom naatiqun bi naatiqun bi fammi ay yu tudd ci gémmiñ macha allah gémmiñ mu tudd ngëneelu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba mu jeex xanaa gémmiñ bàyyi dem ba jeex rek waaye moom moom ngëneelu du jeex mukk kon fa tabaarakallaahu ah ci ci ci e, e, e, ci taxawaayu sëñ Babacar Diop bi nga xam ni macha allah sunu lépp la di wëlëre sëñ oustaz Mouhamed Amine di soppe di di wëlër di lépp ñoo ñëw kër ga macha allah xamul ñu bésu yëgal ñu ko ah ñun tamit wax dëgg yàlla ñu am ci te lool bu ñëwee fi fekk fi kilifa yu tedd yi ñu fi fekk. kon nag fa tabaarakallaahu ñu ñaan yàlla ni ñu tàmbalee jataay bi ci bismillahi rahmaani rahim yal nañ yàlla may ñu ta eggalee ko ci alhamdulilahi rabbi alamin te lépp lu luñ ci séenu nag lépp luñ ci bëgg lépp mooy sunu cofeel yokk ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi salaa fi qalbi ahadin ilaa wa harama allahu jasaduhu min annaar bépp xol boo xar fekk ci xol boobu sama cofeel man sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam yaram ba ëmb xol bu araam na safara kon na fa tabarakallahu yàlla na de yàlla def jataay bi buñ ci jëkkee suñu suñu cofeel yokku ci sayduna muhammad mi nga xam ni mooy sang-sangu yi macha allah kon nag ñu ubbee ko ñaan kenn ku ne def fatiha def ayatul kursiyu def lixlaas def falaxeeg yi tëje ko salaatul ala nabi bu waay mën fa tabaarakallaahu ñaan yàlla jataay bi yàlla na ci yàlla def najaax ni ñu ko tàmbalee ci bismillaahi rahmaan toog ci taabal ji ak uh, suñu sëriñ sëriñ Abdou Mbacke moom Baye Cheikh Khady feggoo ak uh, docteur Abdoulaye Lam mi nga xam ne mooy amiru jamaatu Ibadu Rahman mi ngi feggoo it ak uh, Serif Ibrahima Aydara ashab alfadail alulama سماحة شيوخ الكرام أئمة المساجد والجوامع أيها الحفل الكريم والجمع الموقر نرحب بكم ونقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم bokk yi fi daje ñi ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen sargal di leen jaajëfal waaye di leen massawu coona di nuyu nag di jiital ci nuyoo bi ahlu beytu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Cherif Cheybani Haydara mi ngi nii toog jóge ba daaru salaam ndogonu ngir yàlla ak bis bi Chérif Ibrahim Haydara fa tabarakallahu moom it mi ngi toog boroom xam-xamu Sénégal gépp ñépp ñi ngi fi Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal ñoom ñépp ñi ngi ànd ak Ahmed Dame Ndiaye nekk secrétaire général bi ñu wuy si woote bi sunu magum daara docteur Abdoulaye Lam bu jamaatu Ibadu Rahman fa tabarakallahu mi ngi toog borom bis bi sëriñ Abdou Mbakke moom sëriñ Cheikh Khady Mbakke bu Daarul Mu'ti mu ngi toog ànd ak Serigne Abdou Samad Mbakke. waaye cheikh muhammadul haadi ñas xafizahu llahu wa raahu moom mi nga xam ne kenn la ci parrain yi mi ngi ni toog ànd ak délégation bu mag délégation bu oustaz Alioune Sall moom it muy kenn ci parrain yi ñoom it ñu ngi toog sunu rakk Euh, Seyda Hafsa Fall moom it ànd na ak mbooloo mu takku taxaw ci bis bi yàlla yàlla fay ko alaaji as ndaw bu ndukkumaan fa tabarakallahu délégation ñëw nañ taxaw na ci bis bi def ci ndimbal lu bari yàlla yàlla fay ko délégation alaaji Abdoulaye Dia kon nag ñi ngi njëkk a jéggulu sunu mbokki jigéen yee ma jàkkaarloog maag imam ahmed daam duñu jóg léegi fekk am ñu toog ñu ñaan leen ne leen ndajum lislaam la am na nu ñu tooge nii neneen lañ ko bëggee woon waaye ngir yàlla ñi ngi leen di ñaan ngeen may ñu tuuti ñu organiser waat leen man nag comme jaxeer njaay mele soxna si Baye Laay Gay bu 2STV yi moom laa gën a ñemee moom laa njëkk a yëkkati ne ko yaay boroom bis bi ñépp topp ci ñu woote wala lan moo tax Mouhamadou lamin Dramé woote Mouhamad drame kenn la ci boroom xam-xami réew mi waaye mu bokk ci ñi nga xam ne jàng nañ lu bari waaye dañoo mujj ub bunti xam-xam yépp di gëstu nag ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa gëstu bi muy gëstu ak jàng bi muy jàng di jàngale ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa yàlla jural ko mu am ci ay fans yu bare bare bare bare ci biir réew mi ci quatorze régions yu senegal yi fu nekk nit ku baax di ko fa woo pour mu ñëw tàntal ko ñu ànd waxtaane yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa mu xam ne loolu dana jafe ci benn nit mu tànn woote fii ci ndakaaru ci benn place ñépp ñëw fekk si ko ñu ànd pour màggal seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñi ngi ñaan na ñépp ñaanal alaaji njaay ak soxnaam ak 2 euh, yi yépp ñoom ñi ñu may ñu jàkkaarloo ak xamante ak jokkook Mouhamadou Lamine Dramé ba lii am yàlla yàlla fay leen bis bi nag lenn la ci yont Mouhamadou Lamine Dramé bëgg ñu gën a sopp yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu gën ko xam ñu gën ko topp ñu gën gën ko bëgg euh, ndax mbokk yi bala maa jeexal sama kàddu bi ñuy gëstoo mag ñu baax ñi nga xam ne li ñu am lépp ci leeru yontu yàlla muhammad lañ ko amee mag ñooñu kenn ku ne def na lu ne ci àdduna lu baax loo xam ne nit mën na koo ndamoo waaye dama wax ne am na menn mag mu ñuy wax seex Seydil Hadji Malick dafa leen yóbbaale géew ñoom mag ñooñu ñépp nag ci benn baytu bu mu wax bi Maodo demee taal njarnde forme góoru yàlla yi ku ne mu yóbbu la ci gox ne la nekkal am alaaji Malick tabax jumaa yi tabax jàkka yi defar xol yi defar ruux yi nekk jaamukatu yàlla boo xam ne lu ne mën nañ koo bàkkee Maodo waaye dafa wax ne bu ëllëgee su ma teemee teewee ci kanam yàlla su ma laajee ne moo alaaji Malick yow loo indi dama naan rek sopp yuntu yàlla Muhammad ak màggal ko rek laa indi wa laysa li amalun alqaaka yaa amali siwal mahabbati wa taazimi wa salami kon bu Mouhamadou Lamine Dramé wootee ci ñu sopp yonte yàlla Muhammad alayhi salaatu salaam wàcc na Cheikh Mouhamadul Hadi yàlla yàlla fay la xam naa ne duma wax ne am na foo teg Lamine Dramé waaye am na foo teg imaam Daam Njaay lu ma ko jege jege jege ndax waajuram wu góor ak sama waajur wu jigéen ñoo bokk baay waaye lu ma ko jege jege jege bu woote woon baneen bis bu dul islaam dama koy boycotté waaye nag yàlla def na mu xam fan la bokk woote lii boo defee gëstu tuuti danga xam ne bis bii mu woote lu war la sunu maam Maxtar Kala Dramé gane àdduna en soqeekoo Ndramé Njilin créé en 1411 dëkk yu bëri ci ci ci ci ci Saloum ak ci Sénégal Ndramé Njilin moo leen mag waaye juddoo baytiit donc en 1790 man alquran donn daara ci ay maamam génn dem cil ma xambaakool jàngi alquran booba temps dem cil ma xambaakool yombul bàyyee fa ñibbi sewer Saloum dem bàyyi koo baytit dem ca frontière Sénégal ak gàmbi ca Ndaraame démb vers 1832 sanc daaraam jàngale fa lu mat ñeent fukki ak ñett ba bi muy faatu en 1874 am ñu wax 1875 dundam yépp mu def ko ci jàngale ak yar ak tabax doomu aadama boo demee ci biir Saalum am na gëstu yu wane ne lu ëpp fanweeri dëkk ak juróom-ñaar yoo xam ne ñu ngi soqee ko ci Maxtaar Kala Daraame dëkk bu nekk da fa fekk daara danga fa fekk jàkk loolu mooy liggéey lenn ci liggéeyu maamam sëriñ Maxtaar Kala Daraame waaye mu doon koo xam ne da doon liggéey pour jàmm am ci Saalum jàmm am ci Sénégal jàmm am ci àdduna bi thèse bi docteur Rawane Baye def en 1976 nee na Serigne Makhtar Kala dafa nekkoon nitu jàmm noonu la ko waxee ci tubaab nitu jàmm bokk na ci ñi nga xam ne ñoo tax jàmm gën a law gën a sax ci salu li koy firnde samay gëstu wane na ni boo demee ca département Koungheul xam naa imam dam Ndiaye xam ne ko Mbaye Mbaye dafa amoon benn conflit entre ña fa nekkoon di dund ci ay waaso ci ay xeet bakkan yu bari rot fa ñu ne lii daal li ko mën a am solution kenn la nañ seeti Cheikh Makhtar Kala Dramé mu ñëw moom lañuy wooy mu ñëw waxtaan jàmm am benn bakkan rotatu fa lii def na ko moo tax li rawan bay wax daf koy confirmer waaye tamit day confirmer li benn tubaab wax benn administrateur colonial mu ngi benn bind benn téere vers 1870 Alfred Le Châtelier nee na Cheikh Makhtar Kala Dramé ca ndog ca Saalum jamono yooyu le Maba Diakhou Ba moom la ñu doon jàpp comme ki jiite jihaar bi chef de guerre noonu la ko tuddee en tant que colon waaye Cheikh Makhtar Kala Dramé moom lañ jàppoon comme le chef suprême mooy kilifa gu mag yi buñ ñu toogee amoon baat boo xam ne ñaare boo waxee rek ñu bari déggal ko ñu bari nangul ko kon Cheikh Makhtar Kala su fekkee ne yàlla def na mu am sëtam bu woote lii tey dana jaadu dina baax ñu wane as lëf ci ki nga xam ne mooy sëñ boobule nekkoon doon liggéey ci bennoo gàttal al amin bu defoon lu mooy lii ñu xam ne kon wàcc na àndam waaye heureusement bi mu xamee ne lii mooy àndam ay waajuram daara Cheikh Makhtar Kala donle ko ci ay maamam ñetti téeméeri at mosul fay kon mu ngi continue fexe daara ji bañ a fay ñu ñaan yàlla yàlla yiw yëpp yàlla boole ñu ko yàlla dafa ñu toofe tey siir ñi sant ñëpp nag ñëpp rek wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu fii nag dama fi teewee 2STV euh, maanaam personnel bi yëpp ak direction bi mu El Hadji Ndiaye ak soxnaam di Marème Ndiaye El njaay xelam yépp a ngi fi ne moo fi waroon taxaw tey jël mikro bi wax ndax ki waral bés bi ginnaaw yàlla ak yonent bi daf ko ko jaral muy Mouhamadou Lamine Dramé ah yàlla def mu nekk bitim réew soxaam des soxnaam nekk fi di Marème Ndiaye ne bés ba kenn duma ma fa jiitu waaye yàlla miy dogal ah mu am ndog-ndog goroom gaañu kiy denc doomam papa ma gaañu fa la nekk ah maa fa sës bokk di ndaw li mun a ñëw jiite délégation ma jiite délégation secretaire général di mooy seen secrétaire direction madame Sarr mu ngi fi ñu envoyé une délégation technique aussi ñu ngi fi caméraman chauffeur technicien ñu ngi fi ah tey nag wax dina jafe si man parce que bu ma xoolee millier bi ah dina jafe si max ma wax waaye nag dinaa jéem ndax ki tax may wax jaral na ma ko muy Dramé Dramé dafa ñëw 2STV yi fekk fa ay nit ñun ñuy wax ne dañu am chance ñuy wax 2STV yi ndax ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu si lislaam fii si réew mi ñi ne 2STV yi si crème bi la bokk ñi leen xam walla ñu xam ne li may wax dëgg la Maodo Faye dafa jiitu di wax di def émission bu am solo Dame Ndaye ñëw fekk si ko yaatal ko pédagogiquement administrativement ndax Dame Ndiaye dafay wone toujours exemple di wax si yàlla di wax si yonante bi ñu ne déet Dramé yegg si imaam Dramé yegg si koo xam ne ki soppul lu may yonante bi waxam yépp si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam jëfam yépp si yonante bi la ko jëmee ñëw yore euh, émission bu ñuy wax alamine yéen ñëpp ñi koy seetaan gis nañ la mu fay liggéey ñu ne déet Ablaye Gaye yegsi ñu ne ti déet Tafsir Gaye yegsi ak imam Aydara imam euh, Aydara ñoom ñëpp di ngeen leen gis koor bu ñëwee liggéey bu rëy bi ñuy def moo tax ñu ne ñun 2STV yi dañoo am chance di ñaan yàlla mi nga xam ne dara tëw ko yàlla ñu yàlla yàggaleek ñoom yàlla na yàlla yokk seen xam yàlla na yàlla yokk seen wér si daraja yonent bi salallaahu wa sallam wax ji du mën a guddi du mën a gudd di moins parce que su ma gestoo xool kilifa yi fi toog dama naan tuuti naa si wax fii waaye nag lépp lu ma fi wax su fekkee njuumte am na si ngeen jéggal ma ko du si man xëy na si yàllaa ko def walla si ñàkk xam moo ko def maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp imaam Dramé jërëjëf imaam Dam jërëjëf ñoo leen di sant di leen gërëm yàlla leen yàlla yiir yiir seen njaboot yàlla na yàlla yokk xam-xam gi yàlla na ngeen yàgg évoluer 2STV yàlla na leen julliti Sénégal yëpp yàgg déglu si rajo yoon ci salaahu salaam chérif euh, yi fi toog yëpp maa leen di gërëm di leen sant maa leen di nuyu di leen sant di leen wax bu leen ñu fàtte si ñaan jërë ngeen jëf Alioune Ndiaye mi nekk sama droite yàgg nañu liggéey yàgg nga liggéey moom maa ngi koy nuyu di ko sant Alioune jërë ngeen jëf. jërëjëf Seck waaw ñu tàcc ko bu baax walla saal bi dafa tàng waaw kay saal yi moom ñaare bu bare ay ustaas rek du bari tàccu waaye ñun taalibe yi nañ tàccu ustaas yi di fettasu <laughs> de leen tàccu bu baax ustaas yi ñoom naan nii rek jërëjëf jërëjëf tonton Seck ñu ngi koy jaajëfal bu baax di jox kàddu gi ki nga xam ne mooy Amir Abdoulaye Lam mu jiite jamaatu Ibaadu Rahman mu yëkkati kàddu mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa ñu ngi nuyu kilifa yi fi teew yépp ndax boo xoolee fi mu ne Sénégal ñépp a ngi fi kon ñu ngi nuyu kër sëriñ si fi teew yëpp di nuyu imaam yi fi teew yépp di nuyu association yi fi teew yëpp di nuyu góor ñi di nuyu jigéen ñi euh, léeg-léeg bu ñuy wax buñ commencé ba léegi damay jaaxle dama naan sama rakk Mouhamed Lamine Dramé moo woote walla wala daf ñoo woo ci turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma bëgg mu wax ñu moom moo ñu woo wala kon wuyu suuñ la alhamdulillah istajibu lillahi wa lirrasuli ida daakum lima yuxyikum waalamu an allaha yaxulu bayn almari wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharun loolu rek laa bëggoon dégg ci moom ne woowuma leen kon wuyu suuñ la dafa am ko woote ñu wuyu si ko mu yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi jinne yi dañoo gën a muus nit ñi alquran nettali ñu ko ñoom bi yonte yàlla muhammad wootee bañ ko déggee dañoo am mat gu toll ni dem ci seeni mbokki jinne ne leen kat kaay leen ñu ànd wuyu ji wooteeb aji woote ji ajibu daayallaahi wa aminu bi kon ñun itam ñu ngi am mbégte lool ci ànd sunu rakk Mouhamed Lamine Dramé wuyu ji wooteeb yonent yàlla Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam euh, bi ñu nekkee di jàng ci Kaolack dama daan wax ne siira duma ko réviser siira du ma ko réviser ñu lu tax ma ne ba bu set li may déglu ci gàmm yi doy na ma ba bu ma demee di def examen rek ma xam li may wax te noonu la daan amee nag duma ko réviser ndax fu ma toll ñu ngi naan ma yonent bi sallallahu nee na wax ma ay maamam wax ma sax njëkk mu juddu ba ci Adnaan wax ma dundam yépp ba bu ma demee bu ñu tegee question yi ma mën a répondre sans ma am ci problème dama bëgg a wax rek ne Sénégal bokk na ci seen point fort fu ñu toll ñu ngi feeñal kan mu yonent yàlla Muhammad salaa sallam sa Alioune Sall xam na ne bu ñu àndee dem Makka te boobu ak léegi-léegi mu mat fukki at maa ngi nuyu colonel Issa nga xam ne ñoom la ñuy àndal dem Makka bu ñu ñëwee Medine dama naan pèlerin yi góor ak jigéen mag ñi ki ñu doon joxoñ fële ci Sénégal agsi nañ mu ngi nii waaw ki ñu doon joxoñ ci Sénégal agsi nañ ci moom mi ngi yaakaar naa ne euh, fu ñu toll dañuy wax naan sunu mag ñi sunu mag ñi waaye ñoom gàcc gàcce ma kenn wootewu ci dara jëmale sa bopp bëgguñoo nit dara ki ñu bëgg daal leer na mu yonte yàlla Muhammad ñu ngi am sax ñun ñëpp ci loolu lañ ñu yar loolu di xéewal gu màgg goo xam ne doy na ñu koy ndamoo léegi rek maa ngi am na koy wax sama xel daj ay bayit ci téere mag ñi ma tudd ci benn rek suñu maam alaaj malik radiallahu anhu xam ne wax nañu bëgg yonent yàlla muhammad salaa sallam lu koy feeñal fa laysa nafan ala xubbin jeex na wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf jërëjëf Amir. wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. alhamdulillahi waxda wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. rabbi ashrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli uxayikum bi taxiyati lislaam wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh gannaaw ba ñu sante yàlla ci gàttal rek ndax eh, mbir mi dafa xat te lu nekk ci dënn yi xeejul ci bés bi moo tax nag dañuy gàttal rekk nuyoo ñi fi ñëw ñoom ñépp ñu ngi leen di nuyu jiital ci nuyoo bi nag waa kër Seydina Muhammad ndax yonent bi yàlla ci boppam sax moo leen jiital innama yuridu llahu li yudhiba ankum rijsa ahlul beyti wa yutahhirakum tathira seen maam nee na fu nga leen fekk ngeen jiital leen maa ngi ànd ak shérif Cheikh Mouhamed Vadel mi ngi ne toog ma fekk fii shérif Ibrahim moo tax ñu ngi leen jiital ci nuyoo bi teg ci nag ñi nga xam ne ñoo fi nekk ci kilifa yépp sëñ suma xarit sëñ Cheikh mi ngi nii toog Mbakke ak Cheikh euh, Abdourahman Mbakke euh, jël nuyu sang yëpp ma teg ko ci seen loxo ñu eggalil ma ko jël li nga xam ne mooy nuyoo imaam yi ak ñi nga xam ne ni ñëpp ñooy borom xam-xam yu fi teew teg ko ci loxo borom bés bi di Mouhamed Lamine Dramé ak suma xarit Alhaji Omar Seck ñu jotil ma leen ko su defee nag ñi des ñépp ñu ngi leen di nuyu góor ak jigéen mag ak ndaw di leen xamal ne bés bii nii rek la mun a mel lu tax mu mun a mel nii jëmm ji Cheikh Mouhamed Lamine Darame nii la sa bés mu sa mel ndax euh, sopp Seydina Mouhamed sopp waa kër Seydina Mouhamed sopp li nga xam ne mooy diine islaam sa tànk guddi ak bëccëg danga ñuy fekk fii ba Jolof di wax ci waa kër Seydina Muhammad di wax ci Seydina Muhammad kenn xamul ci yow lu dul rasulillahi ak yàlla moo tax sa waxu yàlla boobu nag ak Seydina Muhammad moom moo la wuy si ñun nag foo ñu woo ñu wuy si la jalaan nga ñu ñu jàppaar jolof boo fii keroog bu mu bu nga ma wooyee yow ak alhaaji Omar ma ne leen incha allah bu ma dundee al azimatu lana wal qadaau lillah bu ma dundee bu soobee yàlla dinaa ñëw nuyoo soxna yi nag ma teg ko ci ki nga xam ne mooy Hafsatu Male Euh, moom ki ngeen tuddee bés bi moom dama koy seetaan toujours ci 2STV waaye nag ñi ngi ñaan yàlla yal na ko yàlla jàppaleel gën ko dooleel gën ko may kattan yokk xam-xamam ñi ngi jël nuyoo soxna yëpp teg ko ci sa loxo nga eggalil ñu ko bu loolu paasee nag ngeen xam ne lii rek moo am solo ngeen wuy si yàlla ak Seydina Muhammad Seydina Muhammad ku ko wuy si te muy dëgg ci yow na ngeen xam ngeen ne raw nga àdduna ak àllaaxira Alxaaji Umar maa ngi lay gërëm suma xarit nga suma soppee nga ñun ñoo bokk lépp wax naa leen ñun waa kër Seydina Muhammad bu ñu leen amul woon yéen borom xam-xam yi dinañu sonn ndax yéen ñu taxawu côté bu nekk moo tax lu xew rek dangay woote keroog mu may woo yow ak eh, alxaaji Mouhamed Lamine Darame nee naa leen incha allahu dinaa ñëw yow nag dañu lay beral loxo ndax yow sa taxawaay ci diine bi yow it rafet na alxaaji Omar ñu ngi lay gërëm di la sant ñun waa Jolof de amul fenn foo xam ne fii amuloo fa kaddu amul fenn foo xam ne amuloo fa loo war a wax moo tax yal na la yàlla jàppale di gërëm nag 2STV ñi nga xam ne ni suñu xarit di El Hadj Mouhamed Lamine Darame mi ngi fay liggéey mi ngi fay won nit yi yàlla ak Seydina Mouhamed yal na leen yàlla may doole kattanal leen El Hadj Mouhamed Lamine Darame gàcc nga laam yal na yàlla may la wér guddal sa fan xam nañu sa xol ak ni nga mel ci diine inna diine inda allahi al islam foofu nga teg sa tànk moo tax nag yal na guddel guddal sa fan wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Chérif Cheybani eh, Aydara kàddu yi am na solo lool yal na yàlla def ci barke bu yaatoo yaatoo yaatu